sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaan alxikam mbokk yi ginnaaw bi suñu borom tabaraka wa taala julli ci sangu ba ca madina sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifatul am cheikh mouhamadul muntaka mbàkke yàlla ko fi yàlla bàyyi di ñaanal itam mboolem waa réew mi ak ñi nga xam ne ñu ngi topp émission bi ngeen ànd ceeg seen mbokk Makhtar kebe mu Cheikh Salif Mbacké di ñaanal alaaji Sëriñ Seck mi nga xam ne mooy jàppanal émission yi ba ngeen mën ko am ci seen YouTube yaatal mbindum alquran di leen ñaan ngeen gën di eh, abone ngir waxtaan wuñu mën a def ngeen mën cee jot tey nag ñi ngi ci fukkeelu numéro ak juróom-ñett ak ñaar fukkeelu numéro incha allah rabbi di ngeen ko am di gërëm ki nga xam ne moo fi neewoon di suñu mbokk Sëriñ Mbacké Sourang ci émission bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def muy yaru ak yere fàttewuñu suñu technicien Sëriñ Moustapha Sarr mi nga xam ne mooy taxaw vidéo yi ba mu mucc ay ngeen mën koo jot waaye itam di gërëm mboolem ñi nga xam ne rek ñu ngi euh, topp boole yi di ko di ko safoo di gërëm sëriñ Adama Seck bu alaaji taala xaar cene ba moom mboole yi da ko saf lool ba bax daanaka bu ci génn rek damay wone ma yónnee ma ko moom daanaka bi ñu tàmbalee ba tey boole yi dara rëccu ko ci ak ñi mel ni moom sëriñ Alioune Fall ñu ngi koy nuyu ak mboolem fu sëriñ daara nekk ci Sénégal ak ci bitim réew ak fu mu mën a nekk rek di soppeeb alxuraan ñu ngi lay nuyu ndax lii euh, émission sëriñ daara yi la ndax boole dafay loo xam ne day fànn wu raar te ñi ko mën bëreetul moo tax nañ profité ci ñi ko mën balaa ñu fay jógee yàlla na leen fi yàlla bàyyi mbokk yi ñu ngi ci weeru koor yàlla nañ ko war a jàmm tam bàyyi ñu fi ñi ci génn àddina yàlla leen yàlla yërëm di ñaanal suñu président bu bees bi muy Bassirou Diomaye Faye yàlla yàlla taxawu ko ba yaakaar bi réew mi am ci moom ba jox ko réew mi yàlla bu ko yàlla tas te yàlla mott li mbooleem ay naalam ak ay projet yépp ci barke alquran karim Sëriñ Maxtaar kon laataa ñu dugg ci waxtaan dañ lay bàyyi nga nuyoo rek di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah di la siyaare mi ñu tàggatoo léegi ci émission bi di nuyu sëñ Moustapha Sarr mi nga xam ne mooy technicien waaye di nuyu waa C3C sit ki ca bopp di alaaj sëriñ Seck ak banqaas mën nekk ci biir ñu ngi leen di siyaare bu baax. Hmm. delluwaat sunu nuyoo di ko feddali ci saaxibul fadila al cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahu llahu wa raa wa ak njabootu sëriñ Tuubaa gépp waaye nag ñëwaat ci ëttub daara di nuyu sëñ daara yi ak dongay daara yi di leen sant ci cant gi nga xam ne ñu ngi koy yónnee bu leen mbir mi safutoon ñu xam fu ñuy teg suñ tànk du ñuy xam ba xam li ñuy def ni la wala du ki taxawoon sax ni la du noonu ab soññee la rawatina ki taxaw naan la li nga def ni la tam ba tey ak jàjj la kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di nga xam ne mbir mi seen mbira ndax lu jafe la loo xam ne ku ca tolluwul doo ko neex a jàngal ku mu sëpput doo ko neex a nettali seen mbokk seen xarit Maxtaar Joob Seex Sall jërëjëf sëriñ Maxtaar di nuyu waa Tiwaawan yëpp di nuyu xalifa ba sëriñ Babacar Sy Mansour ak mboolem kilifa diine yi ci réew mi yëpp rek leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ak xéewal ak sutura ci barki alquranu karim sëñ Maxtaar suñu laaj bu njëkk jëm ci boole mu ngi ci soq ngeen soq ngeen moom ana woon boole ci ñëw soq ngeen naayo naayo mooy ñeent la ngeen mooy ak raasa nee naa leen ngeen mooy siin su wow mboccoor mooy siin su tooy laañ mooy del ju tooy riid mooy ak saat ngeen mooy ak rasayin zox ngeen naayo zuxrufal qawli lan am zuxrufa suxrafaha yunus min suxrufin lisra wa suxrufan ca suxruf ñeent yooyu mooy sox ngeen ñeent jërëjëf sëriñ maxtaar ci suux ngeen naayo ñeent yoon la ñëw ci alquraanu karim jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu yow mi nga xam ne yaa ngi koy topp tey sëriñ daara itam boo yoree sa këyit ak sa big rek daanaka boole bu ñu toll rek bu la neexee mu nga koo bind di ko mokkal comme ni ngay mokkalee alxuraan ji fa tabaarakallah sëriñ Maxtaar suñu ñaareelu laaj mu ngi ci xëkka sawru xëkka sawru moom ban boole xëkka sawru naayo ba tey ñeent la ñeent la mooy abtaxi xakaman mhm. lan am xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha yépp a nga jigéen mooy nisaa xat xakama bay naa nga xabraan xaka mooy sawru kage nga def ko mask ak yet loolu mooy sawru lépp na boo ko fe abtaxi xakaman xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha xat xakama bay na yépp nga xam nga xabraan moo tax abtaxi mhm. xakaman nga lan am xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha yépp nga jigéen xat xakama bay naa nga xabraan xafraan nag mooy xaafir bokk xafraan mooy suratu xaafir fa tabaarakallaahu xam ngeen ne saar yëpp benn bu ci nekk mag ñi utal nañ utal nañ ko tur xafraan na nga gis nga tudd na jigéen léegi mooy suratu nisaa yi noonu lay tuddee fatir muy fàndaak ak mbooleem tur yi nga xam ne rek benn bu ci nekk mag ñi amoon nañ yitte ba utal ko turu boppam woo xam ne fu ko waxee rek nga xam ne saar nangam lañ ci tudd yàlla yàlla fay daaru bañ taara mooy ñetteelu laaj daaru bañ taara naayo ñeent la mhm. daaru bañ taara songi taara mhm. naayo daaru ci boppam kenn du ko taara mhm. te moom nag daa songi taara baat boobu sës dañ koo taara kii ko bëggoon a ràññee luy taara bañ taara am liif ak laam lu hmm. lu ko amul lu nekk nag amul taara kon bi yay mhm. bañ taara bi yay songi taara muy ànd ak lu am taara hmm. daaru salaami lana am daarul muttaqiina namli daarul qareeri xafraan daarul xuldi tafsir boo ko defee at da nga koo taara mu ne bañ na taar te ba noppi nag lam song daa taar mu ne daaru bañ taara songi taar jërëjëf xafraan ba tey mooy xaafir mooy xaafir tafsil mooy mooy tafsil soo tafsil fasilat jërëjëf jërëjëf sëñ Maxtaar ci leeral yu am solo yooyu barakallahu fiika sëñ Maxtaar suñu ñeenteelu laaj mu ngi ci sar comboñ sar comboñ moom bon boole ci dikk sar comboñ juróom comboñ mooy ñetti tomb nañ doon wax ca siin yi rek léegi lañ jóge ci ngeer mooy ak rase combañ nag mooy ñetti tomb ñu ngay binde tomb loolu mooy combañ tar combañ juróom xadis takk sartu lan am las takk sartu lan raaf wala xadis takk sartum moo nekk lan am ngeen baat ma xadis takk sartum lan am las takk sartu lan raaf fa ak sarta xóot atarna njenge fa atharna bihi naqaan ca aadiyaat yooyu yëpp seen cuun seen saaye cuun la masha allah atharna bihi naqaan ca aadiyaat jërëjëf sëriñ maxtaar ci leeral yu am solo yooyu ñëw ci sar comboñ suñu juróomeelu laaj mooy nuunar ak ndaanaan nuunar ak ndaanaan moom lu ci indi baatu ndaanaan dafa mën a daane ndax noon gi léeg-léeg day jokk fenn léeg-léeg mu beru bañ a jokk fenn léegi nag ñu ne ji nuunara daa jekk lool ci jokk ba noppi nag jokkuwul dafa bañ a jokk kon day ndaanaan la muy mhm. dafay daane dëgg la kon jar naa moytu nuuna nuunara ak ndaanaan juróom-ñett muy samaana mhm. maninta manhu yaar yépp a nga galaay xoolal maninta manhu boobu man gi mhm. da nga koy def ak noonu ba noppi inta manhu ga ne ca kanam man ngaa defoon ne daa def ak sa miin rek ak sa ñaari tomb daal <laughs> inna maa too a doona do inna maa de inna ba noppi beroo do na maa too a doona jërëjëf moo tax mu ne maninta man huyaar yëpp nga galaay mm-hmm. inna maa tooxa doona la aatin ma nga lan xaam mm-hmm. wa inna maa a doona yaar la xajjeeg loqamaan fa mm-hmm. inna maal xusri yusran inna maal xusri yusran yëpp nga sarxi anna maa lahu axladahu ca lumasa yëpp ànna gi mën nga koo jokk ci baat bi sës Galaay nga fàttali. mooy Ali Imran jërëjëf bu ñu fàttali ne Galaay mooy Ali Imran jërëjëf sëñ Maxtaar ci leeral yu am solo yooyu jëm ci nuuna ak ndaanaan euh, sëñ Maxtaar suñu juróom-benneelu laaj mu ngi ci wa bañ lomp. waaw wa bañ lomb. Mhm. yet ñett yoon la ñu waf dan mareem wap an musammini diggante wage ak baat ba ca sës mhm. amatul liif liif gi mooy lomb ak lomb mooy ak am sag waslu mhm. mu ne yooyu baat nag amuñu am sag waslu ci ñuy dégg arab mhm. wala ko diggante waaw gi ak baat bi ci sege amul ak alif bu leen jokkale jërëjëf jërëjëf sëriñ Maxtaar ci leeral yu am solo jëm ci wa bañ suñu juróom benn juróom euh, juróom-ñetteelu laaj mu ngi jëm ci as gëg ak comboñ as gëg ak comboñ sàpp sàpp mooy. mooy fukk mooy fukk ci gëkk gi mooy dafay am ak liif. Mhm. bala ngaa tudd baat ba ci kanam. Mhm. combañ ga mooy waxoon nañ ko mooy ñetti tomb lay doon du doon siin. Mm. moo tax ñu ne as gëkk ak combañ sàpp. Mhm. ida asmara. ida asmara. gi day am liif. ba noppi nekk comboñ mu ne ida asmara yaar yëpp nga lan am falamma asqalat la araaf asqaalakumu namli athqaalahum wa athqaalan maha athqaalihim yépp nga anka wa athlin min sidrin nga saba in xatta ida nga qitaal athqaalaha ca zilzaal yépp as la ci cuun bu daa daa la mooy dëkk macha allah kon alif moom lañ tuddee woon dëkk waaw ah, macha allah ndeysaan day wane rek ne mag ñi fekk nañ fi luxal arabiya waaye kenn du ñoom ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ arab li muy riis yëpp fexe nañ ñoom ba créé ci biir loo xam ne bokk ci woon ngir mu ngi ko xamee fa tabarakallah loolu yitte ju rëy la yàlla leen yàlla fay ci alquran jërëjëf sëñ Maxtaar ci eh, askag ak comboñ suñu juróom ñetteelu laaj mi ngi jëm ci comboor magum jaynaar njomboor magum jaynaar njomboor magum jaynaar njomboor mooy ak ayin mook ak mooy ak ayin jaynaar mooy ak rasiin léegi ayin bu amee tomb ca kaw nag da koy dootu ko doonati dootu ko doonati déedéet ngañ ñi lay doon ngañ ñi lay doon jërëjëf njommoor magum jaynaar njeego njeego mooy juróom benn juróom benn wala taazimu wala taazimu ayin ak rasiin kon njommoor ga mooy mooy ayin ga jaynaar bu mooy rasiin mu ne wala taazimu laam foo fekk nag nee na njommoor moo mag jaynaar ga ayin ga ay jiitu rasiin ga rek la ko doon ka mag mooy kañ njëkk a tudd dëgg la moo tax mu ne wala taasi moo laan mm-hmm. minal maasi lan am mm-hmm. yaasu bu yaar la mm-hmm. yunus ak saba in fi maasi li na nga xóot la maazoluna nga soara bu ci nekk rek ñoom moor maa jiitu jaynaar nga tege macha allah la maazoluna nga soara yi am solo yooyu jëm ci ñoom boor magum eh, jaynaar magum jaynaar barakallahu fiik suñu beneen laaj eh, nga xam ne moo moo jiitu bi mujj mooy arxaam ndogaan ndogaan arxam ndogaan moom wan boole ci ñëw dañ koo mën a bind bañ koo dog mu ne day dog nag ndogaan mooy day dog ndogaan ndog baatu dog lañ jël tëgg ci ndogaan mën a jël tëgg arxaam ndogaan juróom mm-hmm. fii arxaami hinna laan ku ko aj daan mm-hmm. sa la yépp nga lan am mm-hmm. ko aj daan day dog arxaamakum xitaal arxaamukum mbóore limti mbóore mboori mooy bañ a laaya limti mooy limtihaan arxaamu kum moo nekk ca ca limtihaan mm-hmm. te day mbooree muy kenn du ko laaya muy ñeent yooyu jërëjëf sëriñ ci leeral yu am solo yooyu jël ci arxaam ndogaan suñu laaj bu mujj nag mi ngi jëm ci ami jamtaara ami jamtaara juróom mm-hmm. ami laahu mm-hmm. ami gi dafa song laahu dafa jam taara dafa jëm ci taara ami laahu yaar laa nag mbargaan mbargaan mooy yuusufa amin luñ sa yey ni yaar yépp nga lan am ami samaa u naasiaat ami jamtaara jërëjëf ami samaa u banaaha banaaha ca jërëjëf sëriñ maxtaar kebe moom Cheikh Saalihu Mbàkke ci waxtaan mu am solo woowu jëm ci boole alquraanul karim yi nga xam ne leeral na ci lu ama am solo kon mbokki seen daara yi émission baa ngi noonu seen émission la ngeen bàyyi ko xel xam ne fànn wu raar a raar la te ñi ko mën ci réew mu bëreetul ñu ngi ñaanal Serigne Cheikh Tidiane Seck bu ci ne ba yàlla yàlla yokk leeram ku mënoon fànn la daana wax ne li ma métti mooy danaa ko yóbbaale ndax amu ko waxtaanal ñu classe sëñ Maxtaar gii ko mën nag ñu ngi ñaan yàlla leen fi yàlla bàyyi ba lii na ci ñoom yàlla nañ ko sotti ci dënni ñeneen ñi nit ngir mu nekk loo xam ne du du du du continuer la waaye du dog sëñ Maxtaar ñu ngi lay ñaanal jàmm ak xéewal ñu ngi ci weeru koor yàlla nañ ko koor ak jàmm yàlla mu nekk suñu mujjanteelu koor luñ ci jaamu yàlla mu néew bari yàlla ñu ko yàlla nangul ñi jiitu itam yàlla na leen yàlla yërëm suñu way jur yi mboolem ko sa way jur na ci biir suuf rek yàlla na yàlla ko yàlla yërëm te xaral ko àjjana ci barke alquraanul karim kon bi mooy seen fukkeelu numéro ak juróom-ñeent muy 19e émission di leen ñaanal jàmm ak xéewal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu والقلم وما يسطرون